wa man ihtada bi hadihi ila yawmi ddin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, gannaaw bu ñu sante yàlla sunu boroom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaaro te di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi ak fan yu tedd yi ñu nekk di jiital ci nuyoo bi ak ndokkeel gi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu jullit yépp ak fu ñu mën a nekk ñaanal jàmm ak tawféex di am bu baax a baax ci ñëwaat ci seen émission bi nga xam ne moom la ñuy faral di ànd ak yéen muy émission gàggantiku nga xam ne dañuy jël ay tomb bi diine yu yitteel jullit yi ci seen mbiri diine ak seen mbiri àddina yoo xam ne des na ci fàttaliku ci ku xamoon waaye des na ci xamal ku xamutoon di ci dalal ay boroomi xam-xam yoo xam ne Eh, dañ ci indi ay tomb ngir ñu gàgganti ci ñu gën cee ràññee bu baax sëriñ Mbacke Abdourahman eh, ñu teewaat fii ci këram ci Daaru Salaam ndaam ngir fas yéene indi bind boo xam ne dañ ciy gàggantiku xam ngeen ne nag ñu ngi ci weeru tabaski eh, ku wax tabaski nag danga wax lu aju ci tabaski ak julli ak atem moo tax tey suñu laaj tey yi nga xam ne jot nañ ko ngir fas ci yéene gàggantiku yépp rek ci e, tabaski lay aju tabaski nag di sunna su am solo soo xam ne e, suñu feddali la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa ko def e, digal ko jullit bu ko man tamit mu def ko kon nag loolu it attee ca lislaam tëral ak ya nga xam ne mooy ya ca war ak yañ ca war a def ak yañ ca war a moytandiku yépp am na ay laaj yu fi ñëw yoo xam ne bokk yi laaj nañ ko Euh, ñu war koo jébbal sëriñ bi ngir mu tontu ci laaj yooyu kon sëriñ bi dañ lay jébbal kàddu gi nga nuyoo bu ko ñu jublu ci eh, laaj yi incha allah aoudu billahi min ashaytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ Abdou Rahman mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel yi ak tub xam-xam bi ginnaaw bu ñu siyaaree ñaanal Mawlana Cheikh Mouhamadou ni moom taxaw suñu borom gën ko yàgg gën ko sàmm ndokkeel ak ummat islamiya ci ñu ko waxee dix-huit bii nekk nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñooy bis yi gën ci at mi bëccëg yi gën ci at mi mooy bëccëg yi ñu toll xam ne mooy fukki fan yi jiitu ci weeru tabaski ñuy dëgmal yow mu arafa di dëgmal yow mu naxar bis mm-hmm. yu tedd yoo xam ne yu bare ngi ci fàttali mbokk yi ni bëgg nañ lool ko ci jàmm yàlla di ci bàkk yàlla di ko ci kañ di eh, di ko ci sabbal di suñu santaane lool lool yu bari lool sax nag kon loolu ñu koy mbokk yi yiwu ci nekk it bëgg nañ ko ko woore te wàcc na bisu juróom-ñetteel bi ak bisu juróom-ñeenteel muy talaata ak àllarba bis yu baax a wax jërëjëf sëñ Abdoulaye ñu lay siyaare baax di siyaare mbokk yi hmm. leen ko xaadi xam ne yépp ñu ngi taxaw liggéey hmm. fiika jërëjëf sëriñ bi ci nuyu bu am solo boobu eh, eh, noonu ko waxee tamit ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñooñu ñoom lañu ñu àndal liggéey bi sëriñ Abdou Khadir Bousso mi réalisé émission bi tey mu ànd ak caméra maanaam sëriñ bàcc ba di nuyu mbokk yëpp rek kon sëriñ bi suñu laaj bu njëkk euh, dañ ciy ñëw rek ci saasa euh, mooy lan mooy àttab tabaski ci boppam ak lan mooy ay ngëneelam. waa koy jërëjëf sëriñ Abdul Ahad tabaski day jaamu yàlla bu am am solo. boo mhm. xam ne ñu bokk ci sunna di bi sallallahu alayhi wa alihi ba mu ñëwee Madina fekk leen ñuy feetu ay bis ñaari bis mu laaj. ñu wax mu leen yàlla wotteel na leen mhm. bis yu gën yooyu ñu mhm. bisu tabaski ak bisu korite mhm. ndax ñaari feet yooyu ñooy feetu lislaam julli nag mën na ay feet waaye moom ñaari feet yooyu bëgg bu digg nit ñi bëcc kenn bu ci wane sax ak ak néew doole ku ci mën a taaru taaru woo ci dañ koy jàppee ak euh, suuf ana bis yu gàdd tedd la xam ne sunna mu akkada la ci jullit boo xam ne sàrt yi dajale ko sunnatu aynin la it ne maanaam xam ne jëmm biir lay doon képp koo xam daal sart yi nga xam ne moom lañ bëgg ki koy def mu daje ci moom bu ci dajee ku mën a doon nga tabaski tuur deret sunna sunna su dëgër la dañuy wax sax ne bu ko ab dëkk bàyyi woon dëkk bépp maa fi bàyyi woon limaan sëriñ naa jër ngaan nay jëmale ndax daa bokk shaayira la min shaayirillah dañ ko war a sàmm ñu mel ne nodd ak yu mel noonu dog doonte du farata waaye bu dëkk commencé woon ne du noddati limaan sooy jëm nga ne jëmee noonu fi ñu ko ñu tax mm-hmm. day jëmmal ne dëkk diine mm-hmm. bés la mm-hmm. nekk sunu ma xam ci kenn ku ne bari nga loolu doy na ci yonent Muhammad alayhi salaam nee ci bisu Tabaski ab jaam defut defanul yàlla lu gën tuuroo ko ci dara kon yu baax yi ci def yëpp tuur dara yi yëpp nga ci dara ngir yàlla wax na deret jooju wàccuwaay bu rëy la am suñu borom balaa laal suuf na ci am xam ne. Hmm. kon tabaski solo la lu bari nga leen. yooyu ndeysaan ba ko yàlla joxe ndigal li ba ni mu génnee àdduna musu ko bàyyi. saxaaba yi ba suñu jonante ji musuñu ko bàyyi su dëgër la soo xam ne euh, fu ay jullit nekk war nañu ko waaye kenn ku ne nag nekk suñu magal. Hmm. barakallahu fiika jërëjëf sëriñ bi suñu ñaareelu laaj kii dafay laaj mu ne lan mooy àtteb tabaski ci góor ak ci jigéen. waaw loolu mu wax léegi mooy sunna mu akkada la ci koo xam ne yii daje na ci moom mm-hmm. mooy nit koo xam ne euh, man ngaw mm-hmm. man ngaw euh, te nekkoo di ak mag mm-hmm. kooku yëpp góor ak jigéen dugg nañ mag ak gone dugg nañ gone boo ma alal sunna la su bis tëbësi ñooñu yore nel waa ay kilifaam ñoo koy wut sunna la ci mag ak gone ci góor ak jigéen kenn dal la nekkul sunna ci moom mooy ku nekk Màkka jaay ah. ah tey mbokk yi nga xam ne ay eh, mbokk lañ yàlla su dogal ña màkk fi ni di aj ñoom tënk suñu ku ci ku ci defarul ab fii ci Sénégal na ci yéene ak njabootam mu ci yéene bopp moom mën naa defar ab nag yéene ci njabootam yëpp yàlla am may leen yoolu tënk moom xaj bi su ko amee ca màkk ah. mu rend ko su ko amul bàcce hmm. waaye ku dul kooku nag sunna la cee bokk man ana fekkee ne man mm-hmm. faqiir ak toosi sunna ci moom man-man mm-hmm. bi it dañuy wax ne mooy koo xam ne njëg gi njëg gi doo ko soxla ci li mënta ñàkk ci suñ dund ci at mm-hmm. ah daal ñu ci daal bu atam yi mënta ñàkk muy li muy xewloo li muy xeek léeg-léeg fay koraak ndox ak nangam nangam yooyu ñu soxla mu des damu des sunn la mu tabaski waaye soxlawul lépp santaane lépp ndax jaamu yàlla moom laajte na. Mhm. loolu moom war nañu ko dégg bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf sëriñ bi ah, suñu ñetteelu laaj bi kii dafay laaj daal bëgg naa xam e, ñaar yi ban moo ci gën maanaam jënd xar mi rende ko wala jël njëg gi saraxe ko lu ci gën. dundal sunna boobu. Mhm. tabaski sunna la. shaa'ira min shaa'iril islam. Mhm. loolu dundal ko moo gën. masab ma dañuy wax ne nga tuur deret. moo gën sarax njëg ndax. mën nga am saraxe ndax boo tollee daj ba noppi. bu neexee saraxe yow. kon am nga saraxe. waaye dundal nga sunu seen teel moom tax léegi. jënd am xar. rendi ko moo gën ngay saraxe njëg gi ay nit ñi jërëjëf euh, loolu leer na euh, suñu ñeenteel laaj kii dafay laaj yan mala moo gën euh, yan xeeti mala moo gën ci ñu tabaskee ko ak bu ci gën. yan lañ war a tabaskee ak ban moo gën ci xeeti mala yi. sëñ Abdou Lahad tabaski bahimatul an'am ba mooy gëléem mhm. nag mhm. gàtt mhm. gàtt mooy xarit bi lii dong la ñuy tabaski lépp ne leneen ci yenn jur gi di su tabaski yooyu nag xara ci gën xarit bi mu góor moo ci gën mu jigéen mu topp ci kuuy ma moo gën muñ tàpp mu lu dul ne muñ tàpp mi daa gën a duuf ndax fii bu gën a duuf yaa gën bu dee kuuy muñ tàpp euh, muñ tàpp euh, am xar muñu tàpp te mu gën a duuf am kuuy muy tàpp màggal bu dul loolu nag kuy màggal. Hmm. boo noppee ci yooyu hmm. bu góor bu jigéen bu bu góor hmm. bu ñu tàpp bu ñu nag benn bis mu judd woon daaw ci yow mu arafa bu na teg si dee bëy at mi na tegal weer bu dee nag na man ñetti at lu mu tegal baax bu dee gëléem na matal juróomi at lu loolu mooy li jàng ah. jërëjëf laaj yu juróomeel bi sax dafay xaw a ñëw ci yooyu dafay laaj yan mooy melo yi nga xam ne moom lañu sàkku ci maanaam am tabaski war koo mel waaw bu dee yi nga xam ne bëgg nañu mel ni moom bëgg hmm. nañ mu doon bu dee gàtt moo ci gën hmm. mu doon bu góor moo gën mu doon am kóoy moo gën lu dul ne mu tàpp ma daal gën mu doon mu weexit moo gën mu am ay béjjën it moo gën hmm. waaw yëpp nag bu ko waaye eh, li gën daal moo gën a mat mooy loolu xaramu góor moo xam ne am kuy la te duuf na te am nay béjjën mu weex la rafet ndax luy jàmm yàlla la lu mu gën a baax mu hmm. loolu loolu noonu lañ ko tàmmoo ci ci noonu lañ ko ci bëy hmm. nag kële hmm. rek mu mel noonu mooy li nga xam ne moom daal kon lu ñuy defal yàlla la lu mu gën a baax gën rafet mu su xasee mat nag mat na hmm. waaye nag lii gën a mat la hmm. waaye su xasee mat at baax na waaye lu mu gën a rëy nag gën a duuf moo ci gën couleur hmm. bu mën a yor baax na waaye couleur bu weex a ci gën bu amul ti goo xam ne day wérul baax na waaye nag boobu bi gën a gën macha allah jërëjëf euh, mbokk mi mu ne lan mooy ayib yi nga xam ne warees na koo moytandiku ci am tabaski nga xam ne daal soo ci gisee yii moom dangay xam ne bàyyil matut tabaski boo gisee ayib yooyu ci gàtt bi waaw yooyu nag xaw naa bari hmm. yoo xam ne benn boo ko gis ab gàtt rek hmm. jàppal ne matul tabaski bokk na ca bu hmm. feebar bu fës nga xam ne ku ko seen xam ne gàtt daa feebar bu mu soox boo xam ne moo raw mi bu ànd ak ñoom ñu raw bu mu manqué benn cër bu dee génn ay nefere waxtu ne mel biir buy daw wéra di mel noonu la bu làppee lool ba nga xam ne tey boo ko reyoon da amul garis bu genn ba daggoon lu xaw bari ba mu ay nopp xanaa daa noppi da ko um dafa tuuti lool yàlla bind ko bu gim ngee xesewee lool nga xam ne boo ko jegee da ngay dar su bakkan mu la tëbës ndax yëpp ay la ci ne yàpp wala cay jeexital bu baax yooyu lañ soxla kon yooyu daal mm-hmm. bu ci muccee te mat at mi mat mm-hmm. at yi ñu wax bu dee bëy bu dee xar lu ci nekk at yi ñu wax ko yées kon xar yi gaaw am yaram a gaaw a rëy te matul at kon wareesu koo tabaski waaw loolu bu ñu tëggoo ci mas al mashhur ci masab bi hmm. nag donte nag am na ci masab bi ñuy wax ne ñuy wax fukki wax juróom-ñetti weer am hmm. lii mashhur ci masab bi nga xam ne moom euh, moom la ñu wax mooy ne bu mu yées at mais hmm. nag lu mu tegal donte benn bis la baax jërëjëf mbokk mi dafay laaj ne ndax moom su amee mennu tabaski rek dana ko doy moom waa ji moom ci boppam ak waa këram. waaw xam nga tabaski sunna la ci nit ki. Mhm. ak ñi war a dundal. moom ay waajuram bu ñàkkee. Mhm. ay doom yu góor ba ñuy baale ay doom yu gën ba ñu am borom menn xaram moomu nag mën na koo rendi yóbbaale ci ñëpp. Euh, xam nga tabaski euh, bokk gi nangu na bokk tiyaaba. Mhm. bokk tiyaaba la nangu. nga xam ne yow eh, dañuy wax rek ne la bu fekkee da ngay tabaski sa bopp di yóbbaale ñeneen ñeneen ñi dañ cee sartu ñetti sartu hmm. nañ doon sa njaboot sa bopp say bopp di am nga am boole hmm. nañ dëkk sa kër nañ doon yoo xam ne yaa leen di dund hmm. ñett yi bu xasee dañ mbokk yi da yóbbaale soxna ñooñu bu leen tabaski bu leen sant tabaski sax ndax man nañ boo yóbbaale mooy ci leen ma ne nit mën naa defar mel ni gat ñi ma wax nii ak njabootam lañ nekk ci biir këram mu leen di dundal lu ñu bari bari amul lim bu yow bu ren dee may xar yéene leen ci ñun ñëpp doos wàcc ñun am na yoon macha allah jërëjëf kii dafay laaj ne ndax daal euh, ñaari nit mën nañoo dajale kenn ku nekk jël dara ñu ñu bokk jënd am xar menn xar ñu bokk ko ndax yéene ko tabaski ndax loolu dagan waaw ci mazhabu alimam Maalik hmm. tabaski dee suñu dee suñu bokk njëg gi dee suñu bokk yàpp Tiwaawan ji lañ mën a bokk man maa moom sama xar rend ko yéene ci ñëw bëgg a yéen mhm. wala mu jënd am xar yéene ci mhm. mi nga xam ne man maa ko rende sama bopp ñi ma ciy yéene mooy ñi ma wax ñoo xam ne sama njaboot li ma dëkk ak ñoom di leen dund mhm. waaye man dama am xar moo xam ne dama koy rendi yéene wu ci sama bopp keneen koo ci yéene baax kooku suñ sa tëmuñ ko fenn loolu neexee ne mbooleem jullit yi nga xam ne amoon nañ yéene tabaski amoon nañ ko maa ngi leen tabaski ñi ñëpp ñu am caabi Eh, bu dee borom kër yi ndaw ku ndaw yoo xam ne dañoo bokk kër daal kenn ku ne joxe juróomi junni kay joxe nangam ñu bokk jënd seen menn xar. su boobaa ñoom kenn du ci des. <laughs> benn demoon ci barab ñu may leen xar. Eh. bokk. Hmm. buñ ko rendee kër ci hmm. des. bokk yàpp hmm. bokk njëg. na nag buñ buñ bokkoon kenn ki féetewoo ko fay fay tegg des moom moom ko moom. su boobaa am ko bokk moo xam yàpp koy wala njëg. buñ ko rendee am na yàpp de. jërëjëf euh, kii day laaj daal moom nee na daal am na lu ko jaaxal ndax mu ne ndax tabaski dañ ko jagleel ñi ñi takk soxna rek ndax daal day mel ne daal boo xasee am soxna duñ la jéggal nga amu nga amum tabaski te célibataire ñoom dañ leen di bàyyi ne rek mu ne ndax ndax ndax dañ ko jagleel ñi takk soxna rek. waaw xam nga seen blaat. Hmm. naa tabaski sunna la ci. Hmm. Hmm. muy góor. muy jigéen muy mag muy ndaw. ab jëlin bu ndaw bu am alal. Mm-hmm. sunna la ñuy tabaski. kon jëleel nañ koo xam ne ba ba mat sën ko dëkk sën ko dëkk. Mm-hmm. fii nag xam nga suñu jafe-jafe mooy jafe-jafe aada la dañuy jaamu aada. Mm-hmm. te sëriñ mag bi radiyallahu anhu bokk na ci lam dénkaane woon ne bokk na ci taxawaay yi ab sëriñ. war a taxaw ci njabootam. yaquduhu bil ilmi wal ibada. kama yurabbihi dañoo war a yar nit ñi bañ a topp aada. fii nag daal man tabaski aada ci anam gu jéggi dayal maanaam li ñuy wax nii am na ñoo xam ne fii yëpp amaguñ soxna jàppal tëbës ay gis koo xam ne ñaari soxna ci barab ku ne ci kër ku ne mu jënd xar jox la moom toog moom mi tabaski di sunna ci moom tabaski ñi nga xam ne tabaski du sunna ci moom ndax mënuñ ko ñoom ñuy tabaski xam moo koy waral sax sa gàtt bi boo ko rendee képp koo xam ne yaa ko jaboot ci ni lu ko dundal boo ko ci hmm. yéene a tabaski yi nga xam ne daal moom Euh, togg nañ ko borom kër ci soxna jëndal tabaski moom bokk ci. waaw eh, tabaski euh, man na ko ci yóbbaale. Hmm. waaw waru ko mën na ko ci yóbbaale. loolu de lu mat a leeral ndax xam na ne daal. ak jaamu yàlla goo xam ne. xam nga hmm. mbir ko dee fi mu rek. Hmm. jaamu yàlla goo xam ne kim. ki ko man lañ ko sant. ki ko mënul sant ko. aada ji ci laxas nag moo tax ñu bari gëm war a jaamu yàlla. dañoo war a dañoo war a te moo ne am na jaamu yàlla yu gën a far tabaski ñor leen. ah ci tabaski ngay gisee koo xam ne farata yàlla ju rëy lay foyofal waaye fu mu ma du ma naxu dana tabaski ah, waaw fu mu <laughs> bi sax dana fa ay waxtu da yu bari yoo xam ne moo gën a far foofu tabaski na nit di ci def loo xam ne day jéggi defal sama gis koo xam ne benn barab daa ñëw ne mbokkam nañ ma yóbbu hôpital dama dama dama jàkkati mbokk bi ma ne ma mu yóbbu ko hôpital waa ji xool ko daal gis ne amul solo jox ko ay kii rek koy yoolu yokk kàttan mu mhm. ne waa ji nañ ko ràññee defee soxna sa ñëw ne ko dama dama wér ba yëpp maa ngi hôpital mu di ko ko yow daal ñaanal yàlla mu bañ a wér mu wëggee man wér di nekk hôpital mu ne ko wax xam ne àgg na ci nit ñi sonn ba di créer ak wéré mhm. ngir bañ ñu topp ñu laaj <laughs> nag dégg nga yi wala nga góorgóorlu ba indi am xar ñu naan ah waaye lu tuuti lii. te bi li ñu wax bu dee jaamu yàlla la. waaw ah. seen ma at. Mhm. mucc ci ay bi ñu tudd fii. Mhm. soox ak at ak lapp ak yooyu. Mhm. bëri na yooyu. li ci des nag doonul yàlla. li ci am solo mooy nga def ko ci niñ la ko sant yàlla tax. dara jooju moo am solo ko yàlla. waaye li ci des nag nit ñi dañu war a am la xam ne jaamu yàlla la. waruñoo nangu leen ko yàq. aada ji aada ji nag yàqal na ko ñu bari bari na ñoo xam ne ñu ngi ren di xar bi waaye tabaski hmm. waaye ren di xar moom waaye tabaski hmm. jërëjëf sëriñ bi boobu leer na te am solo kii dafay laaj mu ne ndax dana daggan ci nit ki euh, mu ray am tabaski yéene ko ku faatu ci mazhab bi dañ koy si hmm. lu dul ne kooku moo ko dénkaane waaw dañuy ragal bañ gistal di ak puukare boobu ñoo la waaye fekkee ne moo dénkaane woon nañ ma defal tabaski man jërëjëf sëriñ bi kii mu ne daal euh, ki nga xam ne dafa jënd am xaram yeew ko ci barab ngir fas yéene tabaski maanaam xar ma faatu wala ju sàcc ko njëkk mu koy rent maanaam moom nan lay def lan mooy atem wutiwaat am xar <laughs> ko tëram bi di ko rent sax mu dam mm-hmm. dañ ko naan àggale ko di wuti meneen ah, waa ji moom ne moom day daal di mucc fi ne ci tabaski na man bu bu amul meneen ah. wàcc na ko ah. na ko ndax amoon na yéene yàlla dogal lay xew mm. wàcc mm. waaye moom yool tabaski moom koo xam ne eh, da nga da nga caa def lu lu tax mu manqué. da ngay santaat yéen ci yàlla sax am na boo xam ne. Mm. dafa gis ay gaa yi xam naa njëkk mu rendi mm. ñu bari laaj seen i jëlee. Mm. bu mu xoolee daan ne ku lojoon na nga lojaat. ndax kenn wut boobu jëleem la. jaamu yàlla ngir mu nekk am am am tabaski moom. da koy def ci sart yi mu tënk. bu ci benn manqué. wala nit ki gisaat ko bu amaatul meneen mm-hmm. wàcce na ko amoon na yéene mm-hmm. yàlla innamal a'maalu binniyaati waaye nag mu taw si ndax dafa suul meneen nag na wutaat ne sa wutu naa xar ko léegi mën génn naaj mm-hmm. man naa am lu aw yiwu rëy la lay dolli ko jërëjëf sëriñ bi euh, kii dafay laaj mu ne lan mooy atteb euh, de lan mooy waxtu bi nga xam ne ci lañ war a rendi waaw xam nga tabaski sëriñ Abdoulaye ñetti fan la ak ji moom gaaw uh-huh. gaaw bu jant bi sooy dafa ko jeex alxames yi waxtu ren mooy bu ili fi nga nekk yow sa ilimaan yi jiite bu jullee ba sëlmal ba xutba ba rendi ba noppi la tàmbalee jant bi so jant xasee so guddi kenn du ko rendi ajjuma bu jant xasee bi so rendi bi gaaw fajar xasee jot ba jant so gaaw bi nag bu jant xasee so ku tëbaski bàcc waaw dañ bàyyi xel ne alxames ji ajjuma ji gaaw bi kooku ci am ku ne nga tëb nga nga dundal sunna si weesu nit mën na ko bañ a am ci alxames si wala ajjuma ji waaye gaaw la am ko waaye nit aussi bu jëlee daal na moytu ray ray ko ci guddi gi rek ren ko ci guddi gis ko ren bi guddi hmm. ko raf guddi amatul si hmm. bu dee bis bu njëkk bi moom waxuma la guddi waaye da ngay nekk ba imaam ren ko na hmm. ñaari bis yi des na nga xam ne amul julli bu ginnaaw fajar bu xasi fajar xase jot da ko tàmmalee ba timis am kon am na ñuy wax ne ñaareelu fan bu tisbaar xasee jot mën ngaa bàyyi ba ñetteelu fan ba hmm. ndax njël beenum ñetteelu fan bi moo gën mujjub ñaareelu fan hmm. kii sax loolu lay loolu lay laajaale mu ne daal lan mooy atteb ki nga xam ne dafa yàkkamti julli rek gaaw daw këram rendi te imaam rendeegut loolu ci mësa bu ma loolu lay wax ni am na ci ñu ko defoon ñu jàll Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis leen dañuy ku rendi woon njëkk sama rendi nga rendi hmm. moo tax ci mësa bi dañuy wax ne ku njëkk rendi ilimaan aw yàpp nga nag toog fa ba ilimaan ko ba noppi maanaam baax na ba leer na li tax ñu bëgg ilimaan gën a sopp ilimaan indi ab gàttal jullikaay mooy ñëpp gis na rendi ndax su ko bàyyi woon këram dañuy war a nekk di nattale ilimaan de xanaa war naa ànd yaakaar naa naa rendi ñu nag bu ko ëndaalee ba rendi ko nga gis na rendi nga doon dellu nag loo yàkkam loolu nañ xam ne ak jaamu yàlla la nañ ko def ci anam bi ñu ko santaane ngir mu baax jërëjëf kii mu ne lan mooy attab ki nga xam ne bi muy rendi am tabaskiyam dafa fàtte wax bismillahi rahmaani rahim. waaw ah, su ko fàtte dara li ñu bañ mooy nga lànk bañ ko hmm. ak hmm. lu ñu la hmm. nee na nga wax ko bëgg na daal nga wax ko nan la ñuy rendee ci sariya rendi dal moom. Euh, bëgg na nga wax ko nan lañ koy defee. waa xam nga tabaski dañoo bëgg dañu ab laaj. borom tabaski ni rendil bokk na jigéen mooy tabaski donte gone la. bu ma nee ren na ko rendi moom soo ko mënut nga rendi la koo xam ne diine mbéy na bu ko rendi la koo xam ne diine kon jigéen su rendee dagan na. jigéen su rendee dañ ko sopp nañ bu yee tabaski mu rendi moom lépp kuy tabaski rek sopp nañ nga la hmm. soo ko mënul dogal ko la keneen soo defee ren nag dafa am ñaar ñuy wax ne yoo xam ne moo ne ci baat ci baat bi ci kanam. Hmm. dañ koy kenn ku ren ci ginnaaw. Hmm. ku ren ci Euh, am na lu ñuy wax ñaari wadaj ak lu ñuy wax xulqu nga xam ne ci la jaar loolu la ñu hmm. te dana am luy des ci baat bi am lu féete nii maanaam ku dem boo fi mu jeexee takk nga xam ne baat ba dara desu si hmm. boo du baax moo tax mbir la moo xam ne it kenn wërta jékki-jékki di ko def noonu rek hmm. di gëstu woo ba xam fi ñu war a teg paak bi jël bëgg nañ mu doon bu ñaw lool nga xam ne doo ko métti dal bëgg nañu moom daas ñu xam ne ci moom nga jëm si loolu gën mhm. wala ngay ren ñaari xar mel mi jàkkaarloo yow ngay ren morom yëpp bu yërma waaw léeg ci kër goo xam ne day gis moom xar yi ñu teg nii di ren di par benn rek yeneen yi di gis yonent bi daa waxoon ne ida sabaxtum fa ahsinu dibha na ngeen rafetal mhm. buñ gis na ñi ngeen dugal seen moom mhm. ak di ko jël ci kaw rek dóor dóor yu métti ndax biir dóor yooyu mën na caa dem bu xasee dem matul dëgg bàyyi xel loolu am na gaañu gaañu nga xam ne day tax dootu a tëdd hmm. teg ko ndànk ci dal euh, génn paaka bi ñaw daaf ba mu ñëwee nga xam ne du yàgg hmm. euh, loo xam ne euh, nag ku ci yor paaka na ko daaf ba mu ñëw hmm. noppal ba muy rey loolu mooy sunu su ko defee ci anam boobu lañuy ñuy rendi ci kanam lay doon ñu def sidit gu mag gi daal mooy dagg ak ñaar ñaari wadaj gi ak ñaari sidit yi ko seq dama bañ a dagg ba taqali ko. ba taqali ko gënu ci lu tee nag baax bu taqali ko woon dafa def lu ñaaw waaye teewul baax. bañ hmm. a taqali ko moom. jërëjëf sëriñ bi waaw kii nee na daal euh, lan mooy atteb yi nga xam ne gis na ñenn ñi di ko def ci mbiri tabaski lu mel ne di jël deret ji di ko laal ci jébeeg ak di ko jàppal xar mi njëkk ñu koy rendeeg ak yu demee noonu. waaw ah, xam nga bu hmm. xam ne damu mas foofu bépp hmm. deret boo xam ne ak gaañu gaañoo ko génn hmm. sobe ko taxal rek doo ko mën a juñ hmm. day wane ne euh, du luñ war def du du ci tayam yi si jublu nga am solo yi nag jàpp moom liñ ci xamoon nit kuy laal xëy nag jox ko mu naan rafetal la jëm ci moom xam ne du deewaale aw mar wala yu mel noonu am maa nag di ko jàppale ak yu mel noonu kenn sant ñu jàppal ndax moom jullit ñi nga xam ne dañu leen sant ñuy laab laal bi ka wër kaaba gaa ko jàng alxuraan ñoom hmm. moom euh, malade du mukallaf ci wax moom yi moom daanaka da gis ñu mel ne dañ ko farataal indi ndox mi laal fu ne loolu moom ci hmm. jàpp na ku yoren lu mu xat faw da nga ñëw jàpp ci ndigal ku hmm. yoren donte am na lu ñuul xadis boo xam ne dañuy wax ne Ibrahima daa waxoon soxna Fatima ne ko ñëwal nga teew waaye loolu xadis bi du xadis bi kon li am solo mooy yow mën ngaa tukki sax yéene maanaam batale nañ ma nañ ma tabaski. Hmm. su boobaa kii ren yow la ren foo mën a nekk ci àdduna yool bi yaa koy hmm. jàpp yëpp daa bokk ci aada yi nga xëy na nit ñi dañ xam ne jaamu yàlla. Hmm. laxas ci aada ci yàq jaamu yàlla. léeg euh, gis lu koy xaw kii mooy léeg ci dëkk ci kilifa yu mag yi. nga gis léeg-léeg bu imaam wala bu kilifa gi di ren di euh, kilifa gi teg loxoom ci ci moom. ren daal sëñ sëñ Abdoulaye. Mhm. liñ ci la wax. Mhm. man ko defal bopp mooy li gën boo ko defal ñu la ko defal. Mhm. soxla wut nag leneen. jarul ngay teg sa sa loxo ci moom ak. soxla ndax yàlla mi tax ngay def xam na ni kii moom yoo lay ren. moom bu muy ren di xam na ne yow mi la ren loolu lañ ci soxla. dagg na it nga rendloo keneen kii loolu la loolu la laaj waaye xaw naa ñëw ci tontu bi. ndax li gën. mooy nga rendal si bopp. soo ko mënut ngir ngànt war waaye nag ki ngay rendiloo na la diineem la mhm. na nga ko wóolu mhm. mhm. bu mu doon ab yëkkati ko yëkkati mu wax doonte bu ko yëkkati ah du kitaab rendi woon gis na ko lekk moom doon médd waaye nag du doon taw si xam def kii daal dana bëgg naa xam nga labiré ko ci ndawaluk tabaski naka lañ koy doxale suñ ko rendee ba noppi ñett bëgg nañu def maye sarax mhm. saraxe ak maye li ñu wutale mooy kii ngay sarax da ko aajowoo mhm. ki ngay maye nag mën na ko ñaajoo mhm. waaye sa dëkkandoo sa wóolu nga nga tig moo xam ñor la moo xam ñor li daal mooy nga may ci ab yi jaamu yàlla xam daa bokk sa njaboot da ci sa wala mu dox waxtu jot ngeen di añ bis suba ne lii ak jaamu yàlla la te mbokk mi defee laaj mu ne ndax dana dagan ci e, ndawaluk tabaski maanaam jaay ci dara moo wala nga jaay ca ndawal ga wala ca derba wala nga jaay derba maanaam jëmmi tabaski dee sul jaay lu ci bokk hmm. lépp jaamu yàlla du der bi kawar gi du dee su ci fay feesal hmm. maanaam nit ki bu ñëwee dee feesal fay ko xaalis wala leneen su nekkee faqiir nag man ko jox sarax sifari sifati waaye nag bu moom jeexit ja bu dee koo xam ne boo ko doon boo ko doon fees loo te saraxoo ko ci mm. ñaar téeméer nga koy jox wala bu junni nga ko jox waaye boo ko saraxee jox ko ñaar téeméer boo du jox day mel ne lenn li ak fay la ko li gën sax moom yu mel noonu baat ñu baat ki feese ko moo yëpp loolu tabaski mm. tabaski moom na fa lépp des nga fay ko boo ko dee fay sarax di ci des kenn du jaay dara waaye nag kuñ ci may mbaa ñu sarax la moom yaa moom mm-hmm. sa waaye li ñuy wax ni yow mi tabaski la ñuy wax ne bu jaay yàpp bu waaye tey boo dikkoon benn waay yàlloon sarax nga ne nga saraxu dara tabaski mm-hmm. génne si ne bañ kii fees damay jël baat bi moom mm-hmm. la joo xam ne tudd sañ na ne da nga may fay naa nga waaye nag buñ saraxee nit ki wala ñu may ko càpp moom bu demee këram bu neexee jaay hmm. waaye dañu wax ne bu mu ci jaay hmm. bi xam naa laaj bi ci topp xaw naa ni boobu muy li xam ne daal gis na ne ñu ngi koy tudde ci tabaski di tànkub goroob tànkub njëkkeeg daanaka boo rayee xar mi ba noppi daal dañuy jël cër yëpp séddale ko loolu daal bëggoon na nga laabiré ci lu ci lislaam wax waaw bu ñu ci jubla may hmm. dañ ko jàpp àq joo xam ne yoon ko may wane tànk bi kenn ko lekk lu njëkk waaye bu dee maye ndax xam nga bëgg nañ nga saraxe ci maye ci lekk day mel ni ñooñu ak may ngeen seq ndax am nañ ko kon may say goro ngir dëgëral seen bopp wala gën a gën a gën a gën a neexal sa say goro yëpp buñ ci jublu maye xam ne moom may ak may la dara mm. waaye nag jàpp naa ne waru su ko jagleel ak keneen seetal lu baax may la wax ne xol bi dee ko moom tànk bi dee ko moom fàll bi ko moom bat bi dee ko moom sédd la cër yi ba mu jeex tàkk day mujj mel ne ay àq la yoo xam ne yow dafa def ngir yàlla ko mm-hmm. ndax mm-hmm. yu mel noonu boo yégee ne daal bëgg ngaa rafetal sa diggante ñoom sañ mm-hmm. boo gisee ku ne doole ci ñoom sañ nga ko saax waaye nag nga doon lu am jëriñ waaye bu ko tënk ci ak cër sàngam la jërëjëf day nuru ay aada léegi te boo day mbokk bi defee laaj mu ne lan mooy atteb euh, siyaaraat yi nga xam ne ñu ngi koy def ci ci tabaski xëy na li jublu mooy jokku mbokk gi wala ndewenaan yi yi ñuy def ak yu deme noonu loolu lan mooy coslaayam ci. waaw xam nga bisu tabaski bisu mbégte la. Uh-huh. bisu ay fête uh-huh. gone yi di ci waaye ka font sax terewul. Jalle Maodo alayhi salaam soxna Aysa nekk na ci barab ay ñaari gone yu jigéen di way. Uh-huh. dina Abubakar ñëw gëdd leen. waaye iddoo dag ko ne bis la boo xam ne mbégte yooyu bu ci soxla hmm. rafetal ci diggante mbokk yi dañu bëgg jàmm bi mu boroomu diggante mu moroom jàmm hmm. buy julli di di ngir yàlla mu ngay waaye buy joxe ay hadaya di jokk ay mbokk moo ngay jokk ci bis yu mel bisu it fasale ci moom ngir yokk aw hmm. ci sa borom sa sa moroom yi jàmm nga gën rafetal sa diggante yu baax yooyu yëpp moom dañ ci def rek lépp lu baax daal loo xam ne da tax am tiyaaba baax na yow gis hmm. jërëjëf bi kii mu ne ndax dana wér ci ki nga xam ne teewul ci jullikaay ba ànd ak imaam ngir ngànt wala yu yu ni moom ndax kooko am tabaskam dana wér waaw tabaski moom sunna la ci képp ko te ñu wax ni hmm. xam nga julli ji ku ko man nit sax bu demoon ba julli ji fekk ñu julli wa raw ko mën naa julli këram. Hmm. loolu waaye loolu nag dàqoon diw tuub dara aadama jëfanut yàlla ci hmm. ngànt ci julli ga hmm. kii mu ne ndax dara dagan ci jullit bi muy gas am pax ci mbedd mi ngir dere yaag euh, neefere yi tabaski yaag ya ca des di ko sànni foofa ngir eh, loolu ndax dana yoon ci jullit bi daal ginnaaw bu mu defee jaamu yàlla boobu. xam nga sëñ Abdoulaye ñun bokk na ci li ñu war a xamee. Mm-hmm. dañoo sant laa barra wala dara. Mm-hmm. lor ak yooyu noonu bu fekkee ne nit ñi dañ ci lor lu ma tamoy ndax lor la joo xam ne ku ca loru ak ay ay ak yu topp yoo xam ne ña la ko ña la koy topp xamul leen. Mm-hmm. ndax ak boo boo ko amee la nit koo xam mën ngaa dem bala yi. ay léeg nga def ci mbedd loo xam ne mu booloo ca loru hmm. yóbbu say ak yoo xam ne xamuñu doon xamoo foo leen di baalu te xaw ma fay leen moo tax ci nit amut lu bokk ak ñëpp ko jël di ko jariñoo ci hmm. dañuy wax ne gas am mbedd am pax fokk wër a gas hmm. bi ca faatu yaa maanaam bu ñu laaj déyee dañ lay jàpp nga ko ku jël loru yaa ko loolu te boo ko defee xet daal nit mën na cee jëlee xet doxe ci wér di faatu mën na caa bi tànkam damm yàqu yëpp ma naa mën a moytu hmm. ndax xëy na dëkk la dëgg la dëkki taax yi laaj na jin waaye yooyu xëy na ñi yor kilifa yi kii ñoo waroon dimbali ñu mel noonu ñu fexe ba wutal leen pour jël bu loolu boo mënee gas sa baax def ko gasal yooyu suul ko waaye moo gën ngay fekk loo xam ne lépp bokk yow nga da nga ci loru lor ci ñeneen hmm. la ngay lor boobu sax xëy na moo tane da nga ko mën a muñ waaye li ngay lor ñeneen ñi nga xam ne xamul nu mu doon nga faatu ñu faatu yóbbaale ak joo xam ñu taaj la jërëjëf sëriñ bi xam naa laaj bii ñuy bi ñuy laaj ni mooy suñu laaj bu mujj mu aju ci wàllu julli gi bëgg nañoo bokk bi bëgg naa xam jullig tabaski daal naka lañ koy defee ak boo ñëwee fekk imaam raw la naka nga koy faye ak ñaata rakk lay doon ak kabar yi eh, nu muy deme waaw ah, xam nga julli it moom ci sunna mu akkada yi la bokk hmm. gën a lool bëgg su it jotee ñëpp génn hmm. ba ci jigéen ñi nga xam ne sax mun muñu julli dañoo bëgg di génn fekk ñaan soxna su woon rek dañu daan digal ñu génn ñi nga xam ne dañu am ngànt dañuy beru ne waaye ngir fekk ñaan bis la boo xam ne teew ci ëtt bi dañ ko bëgg ñëpp duñ ñëw wa subhanallahi bukratan wa asila di bàkk yàlla ñu ilimaan ñëw imaam bu agsee dañu daal di julli yoo xam ne rakka bu njëkk bi day kabar kabar alman kabaraat yeneen juróom benn doolu jàng fatiha ko saar bu jógee ci kàbbaru rakab ñaareel kàbbar jóg taxaw yokkaat yeneen juróomi kàbbar door a jàngal fàtte ko sa sëlmal bu sëlmalee xutba ñaari xutba bu noppee ñu rendi gàtt rendi hmm. wax sax ne ñëpp lañ bëggoon ñëw bu seen i gàtt ci julli gaaw waaye imam lañ gën a hmm. gën yow boo ko bàyyee sa kër iman moom sib nañ mu bañ a yóbbu ndax lu ñu waxoon sànq ne mën naa tax ñenn njëkk ko ren te booba mu leen hmm. su ko defee loolu mooy julli dañoo bëgg nit ñi bu ñuy dem fi ñuy jaar ak bu ñu dëpp nga di bañ hmm. yoon boo jaar boo julli nga dëpp jaar la ñu hmm. bëgg nañu nit mi nga sol lu yees sol ak su iid ci dañ koy tal maanaam ak lu mu sol ba noppi mel ne day wane ne moom dafa dafa dëdd ëtt du sol yére hmm. bis la boo xam dañu bëgg ñëpp sang cangaay moom bis bee ko moom loolu la wuteeg ajjuma ajjuma kuy julli ji sunna la nga sang ku julli ji du sunna ci waaye bisu it sangul sunna sangu la ci ñëpp. sangoo ñaata saabu rek wala sangu ba set waaw. Hmm. sunna la ci ñëpp. Hmm. maanaam ngir set la xëy dañuy wax sangoo laab bi waaye sangu ba set sol li yi yu yees ñu wax ne bisu it lu yees la ci gën donte lu ñuul nag lu lu weex la ci gën donte lu màggal ku ci mën a am yooyu yëpp nag day aj ci man waxuñ nit ñi di ci togg ko lu ñu mën. waaye ku man xotteel sa bopp xotteel sa njaboot yére yu yees. ngeen ànd sant yàlla bu ngeen di julli si ngeen di bàkk yàlla baago ci jullikaay ba wéy di bàkk yàlla ba ilimaan ñëw ci biir ju xutba bu ilimaan fu mu waxee allah ba nga ànd ak mu wax ko bu noppee ngeen teew mu tuur deret nga jóge fa ñëw si kër tuur deret bëgg nañu bis bi nit ki bu xëyee bu fajar xase bu lekkati bu naan hmm. lekk bu mu naan dañu leen di gàtt bi mu dog muy dogit mu dogit ca res ba sallallahu alayhi wa sallam na ko doon defee hmm. bisub it nit ñi dañuy jàpp fajar bu xas fajar xas a fi ñu fi ñu ne waxi jàpp jot na boo xasee bu lekk bu naan ba julli bu ñëw dog ci gàtt bi nga xam ne mel ne taraanga yàlla jooju dañu li ñu jëkk tab bis bi bi doon taraanga ju yàlla mooy correct correct moom dañu bëgg nga teel a yàlla ci ni moo la woor la woon de mu tey mun la mun la ko dañu bëgg nga ndékk mu la nga julli hmm. bu dee tabaski bu ndékk ci julli ñëw ñëw ñu rendi gàtt bi loolu bokk na ci hmm. bëgg nañu bis yooyu ñuy tàmbalee tisbaar tisbaar tëbasi moom fukki farata ak juróom hmm. saa jullee ba sol na nga wax laax bu ñetti yoon maanaam ñu tudd yàlla ci al ayaamul maalumaat hmm. yooyu imata imata imat waaye xel nga xam ne hmm. bisi bisi bàkk yàlla la bisi sant yàlla la waaye bisi wane ab taar ak bégtal kenn waru ci am man man ba noppi nag wane ne man yi ñëruma am rafet na ko sol ci desit ni ñu waxoon nga xam ne boobu xasee taru dañuy bañ nit wat si hmm. la moo xam ne képp koo xam ne tabaski yor tabaski taru na te nga nam ma tabaski wala ñu nam mu laa tabaski nga xam ne ñi ñëpp nga xam ne njaboot gi dañ ci yéene bu ñu wat genn kawar bu ñu lay booy julli bu ñëw ba tuur dara ba noppi booy watt nga doon wattu booy layoo ko doon lay yëpp daal yi ñu ku hmm. ku julli ku ñu raw ci julli gi moom comme ni ngay fayee ñu raw ci gi moom mm, ni ñuy fayee julli rek bu fekkee ne. yow da ngaa ñëw ci rakkab ñaari da ngay ànd ko bu sëlmalee boo a tàmbali mm. mm. bu fekkee da nga imaam daa sëlmal nag nga xam ne yow fi amoo ci dara boobu mm. sëñ nga julli yëkkati yu loxo yi ndax naa daanaka ci kabar bu njëkk bi rek lañ koy def wala kabar yëpp da nga war a yëkkati sa loxo ci masab Maalik moom dañuy santaane mooy yëkkati sa loxo am tolloog say nopp wala say mbagg ci kabar bu njëkk kabaru armal rek yëpp da wax làkk ba nit ñi dañuy def loo xam ne kenn hmm. di ko def ci tabaski koraj di ko def bi lay néew. Hmm. mooy def ni ay loxo yoo xam ne kenn hmm. santaane yëkkati loxo yi yëpp yëpp ko. def ñu moom di bàyyi xel. jërëjëf sëriñ bi xam naa ne euh, tomb yi euh, yi ñu amoon ci laaj man na waaye wax dëgg yàlla da li soxla woon lépp ci xam ko ci wàllu tabaski ñëw na ci li soxla woon xam ko ci julli gi ñëw na

juróom ñeenteel fan tabaski moom sax donte màkkaa ñu raw donte màkkaa ñu raw ndax hmm. am na ñu jiitu mag am ñu ne ci ginnaaw mag ñu hmm. seen juróom-ñeent fi mooy sama hmm. kon bis yëpp nag ñu di ko màgg ci aw yiw buñ nee subal tabaski guddi googu bëgg nañ ko dundal guddi ci jaamu fi la bu tedd la ci guddi yu baax yi nga xam ne moom dañuy wax ne ramadan la muy màgg màgg fanam yu mujj ay guddeem ñoo baax lool ba jéggi day waaye fukki fukki bëccëg yi ñu nekk nii ñoo gën ci at te am ba ci lu baax am na ci saxaaba yi ñoo xam ne dañu dem ci jaay di kàmbal nit ñi di leen kàmbal ñu yàlla na ñoom di kàmbal ñu leen fàttali tudd yàlla boobu. bisi hmm. bisi bàkk yàlla baax a baax. Hmm. di ñaanal bokk ya nekk ca baytal xaram bi jeex farat yàlla mottali leen. Hmm. seen aj te nangu leen. yàlla digg du nangu. muy mooy dangay mel ne ba bala sa ndey door a jóg. di seeti bàkkaar yàlla yàlla defal mboolem jaajëf baytal xaram te ñu dellusiwaat jàmm fekk ñu. amiin. barakallahu fika jërëjëf yow it sëriñ Mbacke Abdourahmane ñu ngi lay ñaanal suñu borom mu defal la gudd fan ak wér te barkeel sa xam-xam eh, eh, ndax laabire gi nga xam ne yaa ngi ci laabire jullit yi ca tabe ci lool kon yàlla na yàlla fay eh, te defal la kattan ñu ngi sant yi bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi te dañuy toppee ci seen seen MKTV wala GMT di seenu Grande Mosquée de Touba bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ñoo ko yor Euh, ngir fas yéene li nga xam ne mooy tur wi ñu tudd rek di doon ay xitmakat liggéeyal nit ñi ci seen ñi xam seen diine ak seen mbir ci lépp lu ci aju loola tax nañu def émission yi nga xam ne ñi ngi koy def muy te bii bokk ci di gàggante ko tey jii ñu ñëwaloon leen ci laaj yi nga xam ne aju na ci mm, tabaski ate yi war ci tabaski yi war ci xar mi ak yi nga xam ne moo war ci julli gi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant sëriñ Abdul Xaadir Bousso mi nga xam ne mooy réaliser émission bi ak sëriñ bàcc ba caméramanam di sant it sëriñ Cheikh Ahmadou Bousso mi nga xam ne moom it danay jàpp ci émission bi di leen dig ab daje incha allah ci sunu beneen émission gàggantiku ci weer wii di ñëw euh, di leen fàttali ne bokk yi nga xam ne seeni laaj ñu ngi fi yépp incha allah sëriñ bi dina ko tontu ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan sunu borom mu defal ñu tawféex ak taysiir ñu yàgg a fekke weer wi yàgg a fekke bis bi eh, te mu ànd ak kattan ak tal barkati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam